wax ji bari na lool olof nag nee na lu yëngu lu nekk la ko yëngale ko ëpp doole li xew lan la mooy le président de la république moom mi nga xam ne peuple sénégalais bi def ko faloon en 2012 ci mandat wu sept ans moom ci yéeneem mu ne woon su ngeen ma falee suma màndaa de dinaa ko def juróomi at waaye jéem na wax na dem na fu ne wax na fu ne que ni moom yéeneem mooy mu def ko juróomi at mais nag ñu xam ne yéene moo ëpp fay jëf moom mi nga xam ne légaliste la dane woon moom nag lii muy wa yéene nii mënul lu dul soumettre ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel boobu nag génn na nee na mandat juróomi at waaw nanga nanga naa nga na mën naa ni d'accord nañu ci mais mandat bii ñu nekk moom faw mu yeggale ko ba 2019 ñu doog a jublu ci mandat juróomi at de 2019 désormais képp kuñ ci falati mandat juróomi at ngay def boo toogee benn mandat demaat élection boo amee ñaareelu mandat muy fukki at mënatoo présenté wu

soninke ak bépp langue bi nga xam ne nekk na làng nationale fii ñu wër dëkk bi sillonner les artères de la ville def des porte ci biir dëkk bi seeti nit ñi wax ak ñoom wax leen li nga xam ne moom lañ dëxañ ci kayit gii su loolu weesoo dañuy wax ni Thiès ministre yi fi nekk faw ñu xam ne nag ku bëgg akara da ngay ñime kaani mënuñu président de la république jiital leen ne leen mankat nit rek laa yàlla rek moo mën a nekk fépp mënuma nekk fépp li ma mën mooy jël ci yéen ci ñi nga xam ne dama àndoon a yéen gëm ngeen alliance pour la république ma dooleel leen def leen ay ministre ak yi directeur ngir ngeen dellu ci baas ba nekkal ma fa sama ndaw nekkal sama gémmiñ nekk sama tànk nekk fi samay loxo mais nag dañoo seetlu ci li wax ji wax ji li ñuy bañ ñu wax ko mooy ñu nga xam ne dañ leen fal fii Thiès pour ñu taxaw président dañoo fayir seen mission doxuñu ko léegi nag ñun dañ ne duñu nangu aussi ñun jeunesse APR kenn duñu yàqal suñu liggéey parce que ba fi kenn nekkul woon ñun rek la woon gisuñu woon kenn xooluñu woon kenn xamuñu woon kenn président rek lañu àndaloon gëm ko man ma ne dina battre campagne pour que wii gagné à Thiès te wii dafa war a gañe te yéen gëm ngeen ni wii dafa war a gagné à di wax ni autorité thiessoise ji fi nekk nekk APR nañ def ni man ñun ñëpp nañ leen jug tàllal suñ loxo waat ni wii dina gagné à Thiès bu noo gañee ñun ñëpp ñu démissionné mënuñu doon ay ministre Kleenex Kleenex moom ku ne xam na li muy jariñ mouchoir la dangay ngay fomp rek sànni benn yoon nga koy utiliser maanaam 2012 gagné nañ rek pare ngeen ci yaakaar ngeen yegg ngeen ci donkaas yi ko coono jeex na déedéet coono jeexul dañoo war a réélire président Macky Sall wii dafa war a gagné dañoo war a gagné 2019 dañoo war a jox président Macky Sall deuxième mandat lool moo tax ŋàññuma kenn xulóowuma kenn xeexuma kenn ñoom ñëpp samay kilifa lañ et je vous respecte à tout le monde parce que nit ñu baax lañ mais nag da liggéey bu taxawee dañuy bàyyi caaxaan yi dem ci liggéey bi bàyyi naxante bi naxante bi doy na jigéen ñi bëgg nañ ku leen jàppale ci seen i projet jeunes yi bëgg nañoo liggéey bëgg nañ ko gestu wax ak ñoom loolu rek la ñuy laaj bëgg nañ ko jox jóg ci soxlay askan wi parce que nag politique nekk lu dul lenn lu dul jublu ci soxlay askan wi boo ko mënul dañ la fay jële teg keneen ku ko fi mën loolu rek moom mooy wax ji maa ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp di wax ni nag projet de constitution bi yéen population bi maa ngi leen di woo ci ñu def massification bi def vulgarisation bi yéen ñëpp kenn ku nekk na jàpp rendez-vous les cinquante deux quartiers de Thiès dinañ fa wër def ay porte à porte dinañ dem ci marché yi dinañ ci dem ci garage yi dinañ dem ci jàkka yi dinañ dem ci église yi fépp fu ñu war a dem pour jàllale ko dinañ ko jàllale loolu laa amoon lu ma leen di jox loolu laa leen amoon lu ma leen di wax di leen wax ni le combat ne fait que dañoo war a gagner Thiès gagner Thiès dafa nekk impératif su ma jógee ci loolu nag dinañ wax ki nga xam ne moom yàlla daf ko baaxe wax ku ne xam na ni Idriss Seck dafa mën a wax làmmañ wee rëy waaye nag yàlla du fay mukk wax bàyyi jëf comme la maam Cheikh Ibrahima fal waxoon wax a ëpp jëf a ëpp wax Idriss Seck mënuñu yow lépp loo ñu mës a wax gisuñu ko yow yaa fi waxoon ni ab Ablaye Wade yow maag yow dootuñu jaaroob taal duma toog a teg yow ba ilaa yow mi diini en 2012 ba sa intérêt nekkee en jeu nga bëgg a doon quatrième président dangaa dem def combine dem biir palais gisanteeg moom waxanteeg moom waaye population bi yeewu nañ kenn mënatu leen nax ñu bëgg la wax ni président Macky Sall kenn du ko dégg ci wax ju ñaaw kenn du ko dégg muy tontontoo kenn du ko bégg muy fayantoo waaye nag ñun bu dee suñu responsable ñimewuñ la ñun ñimew nañ la duñ la may dara foo taxaw dinañ fa taxaw foo dugg dinañ fa dugg loo wax dinañ ko dégg déggati teg kese dinañ ko dégg déggati teg fële parce que waxi kese nga fi def jëfoo jëfoo fi lu dul promenade ñun talu ñoo promené wu ñun liggéey lañ bëgg ñun liñ bëggoon mooy chantier yu ubbeeku liñ bëggoon mooy ni président Macky Sall def NSTS ubbeeku ñu bëggoon mooy chemin de fer dox ñu bëggoon mooy ICS dox képp ku yéen ku fi ñëw pa joxuñu kenn paas yéen ñi fi ñëw ñëpp da ngeen a jël ay bus yu rafet ñëw fii kenn joxuñu kenn paas parce que yoruñu ko bus yi ngeen jël le président Macky Sall moo ko dugal Thiès loolu moom mooy de émergence émergence du promenade bala ngaa promené wu am loo promené woo promenade bi ya taluñu ko liggéey lañ tal NSTS ubbi na chemin de fer tubbi na ICS dox na autoroute Ila Touba dox na kon loolu faw ñu wax ko kon gàcca ngalaama président Macky Sall ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko wax ni fi mu teg tànkam foofu la amuñu seen fay encore une fois maa ngi gërëm ñi fi teew ñëpp loolu moo waraloon point de presse bi je vous remercie jërë ngeen jëf